waaw man de j'ai un problème avec tous les deux hein. <laughs> un sérieux problème avec mhm. euh, parce que su ma xoolee un peu je revisite mhm. le parti socialiste mhm. après la première alternance bu 2000 feu Ousmane Tanor Dieng a tenu c'est-à-dire contre vents et marées pour taxawal parti socialiste te bi muy fexee di xeex ak Abdoulaye Wade pour taxal parti socialiste c'était pas pour venir être un parti de contribution mmh. euh, la preuve euh, 2012 effectivement quel que soit euh, dualité entre guillemets bi amoon entre moom ak Niass et consort ba finalement tas Benno Siggil Sénégal je crois il avait tenu à ce que image yu parti socialiste continue le flambeau du parti socialiste continue di taxaw loolu c'est c'est vraiment euh, quelque chose un courage politique bi nga xam ne il fallait le reconnaître même tout en sachant que xëy na du gagner mais pour moom il était question que parti socialiste di toog di bañ dem élection. d'accord effectivement comme ni mu ko waxee dañu déggoo ci le meilleur candidat bii dem deuxième tour ñu gunge ko. bi ñu ko gunge toujours dans la même logique. Ousmane Tanor Dieng jàpp na ne que comme dañu waxante woon jàpp le premier euh, le candidat venu premier aux élections mooy kii fël 2012 mooy président Macky Sall kon logique la woon ñu gunge ko également donc moo indi woon sax justement ce débat au niveau du partie socialiste euh, sur les khalifistes et consorts bon bref mais li leer ba leer mooy ku xooloon un peu parti socialiste les derniers moments de Ousmane Tanor Dieng c'était un parti socialiste qui allait à la conquête à la reconquête du pouvoir en 2024 c'était pas un parti socialiste bu naroon ñëw ne damay jàppale non je dis quand on voit la lecture lecture lay def quoi moom lecture lay def moi je fais une lecture je dis quand on voit la lecture waaw trajectoire bi parti socialiste jëloon c'était pas pour aller faire Euh, yóbbaale ma. des éléments de cette lecture-là. Euh, oui mais si vous me laissez. oui oui je vous euh, a aucun problème. Parce que je ne boo xoolee PS mu évolué c' était évident que 2024 naroon na am candidat. non non j'ai pas dit ça moo tax ma ne boo dégloo da nga j'ai dit que à partir de 2012. Mm -hmm. comme le candidat bi nga xam ne qui était premier ñëpp jàpp nañ moom nañu waroon jàppale jàppale nañ ko. après sa réélection avant même sa réélection le parti socialiste était dans une projection sur 2024. quels sont les éléments. les éléments étaient clairs nets et précis. Mm-hmm. benn bi mooy. Euh, y a un socialiste j'avais pas des primaires ça non même pas a y a. non non y a un socialiste ici. Mm-hmm. mooy que déjà un friction yi amoon au sein du parti socialiste feu Ousmane pare na woon commencé na woon ay démarche pour regrouper toute la famille du parti socialiste d'abord je parle pas de la grande partie sociale de la grande famille socialiste du parti socialiste ñi demoon ñi geddoon et tout loolu déjà c'était quelque chose ça c'est un point bi nga xam ne euh, en politique je vais pas chercher un ennemi entre guillemets dugalaat ko sama parti si j'ai pas envie d'aller au pouvoir je parle d'un ennemi entre guillemets hein vous avez compris donc man dama jàpp ni que loolu c'était une lecture claire, nette, précise sur ce que voulait Ousmane Tanor Dieng d'ailleurs bi mu fi jógee des gens au niveau du parti citoyen l'ont théorisé théorisé ni que walla sunu parti dafa war a gën a fort sunu parti dafa war a gën a dem de l'avant parce que tamit tey jii toll na fi nga xam ne un parti socialiste sans un candidat à la présidentielle mënatuñ ko supporter ça c'est deux présidentielles waaw deux présidents mu nar a nekk deux présidents ça va être trois trois présidents chefs. non deux dañ ko boy boycotté woon. waaw donc muy loolu. 2007 2007 non non 2007 ils étaient candidats. présidentielle 2007 oui oui législative lañu boycotté woon oui oui c'est vrai législative. Mhm. donc mu mu mu nekk noonu donc ma moo tax ma ne dama jàpp déjà avec le vécu du parti socialiste avec l'histoire du parti socialiste concours de circonstances am nañu. ba ñu jàppale APR au sein de benn Bokk Yaakaar mais boo jëlee tamit la valeur intrinsèque du parti socialiste à parti de 2000. Mhm. nga indi ko ba 2023 2024 bi nga teg les chiffres sur la table le parti socialiste a perdu électoralement te 42 pour cent de Abdou Diouf à nos jours suñ ko doon mesurer. je suis sûr et certain que duñu egg 20 duñu egg 20 pour cent donc je dis que le parti socialiste a perdu dans son compagnonnage pourquoi parce que man à mon avis dafa bàyyi son identité man loolu laa gëm euh, pour la LD c'est le, le même c'est même c'est la même chose quand tu me dis que nous avons nous sommes battus ensemble nous avons gagné ensemble nous avons gouverné ensemble il faudra ngeen wax sénégalais quel est le programme de la LD qui a été exécuté pendant les douze ans par le gouvernement de Macky Sall il y en a pas non non je vous, vous aurez la parole monsieur vous aurez la parole ne me parlez pas d'équité territoriale comme vous l'avez dit tantôt parce que l'équité territoriale moi je crois que c'est un vain mot au Sénégal actuellement nii c'est un vain mot après si vous voulez on reviendra sur le débat mais une chose est sûre mooy jëlee LD aussi sa valeur intrinsèque on nous parle d'un député on nous parle d'un PCA pour mën a taxaw ne voilà lii mooy réalité bi war a tax ñu continuer suñu compagnonnage cent pour autant je cent pour autant ñu daal di taxaw def un audit entre guillemets des douze ans de compagnonnage mooy douze ans yi qu'est-ce que notre compagnonnage avec le parti socialiste avec euh, l'APR ay Benno Bokk Yaakaar a rapporté d'abord aux Sénégalais à rapporter ensuite à la LD, à rapporter ensuite à ceux qui demain comme Amadou Ba daañu taxaw ne dañuy laaj réew mi cest à loolu yëpp dañ ko pour man dañ ko waroon décortiquer mun ko teg ci table bi daal di taxaw ne Sénégalais yi voilà en fait le problème lii moo tax ñun on dans la continuité longévité d'une co coalition c'est vrai historiquement c'est la euh, la coalition la plus euh, qui a le plus duré. Uh -huh. mais attends si ñu nekk si on est dans une coalition où il y a le décret et il y a le chéquier. mais qui est fou pour sortir de la coalition mais qui est fou pour sortir de la coalition Ndoye Mendoza moom moo ko fi wax que ñoom au niveau de Benno soit le président. te proposer un poste soo bëggul il y a un montant de 4 millions et pour cher jox tous les mois. c'est pas moi qui le dis Mamadou Ndoye Mendoza. c'est son ancien camarade. donc tey jii une coalition comme ça c'est tout à fait normal que mu yàgg quand on sait qu'il y des partis yi nga xam ne bon comme certains partis que je ne citerai pas je vous cite pas vous des partis yi nga xam ne à la limite. Euh, sooy wër siège bi ni koy Antoine ministre ministre de l'intérieur Antoine Félix doon waxee sooy wër seen siège sax pour jox leen convocation da ngay réer biir Dakar. Mm-hmm. alors s'il y a des partis comme ça yi xam ne qui n'existent que par le nom de leur secrétaire général ou de leur président mais c'est tout à fait normal que coalition boobu ak ñi ko composé mais du ñu coalition boobu du mën a tas parce que liy taxoon muy tas mooy ñu ne bon. amatul décret pour nga nekk PCA wala nga nekk ministre wala nga nekk lii wala nga nekk lël ou bien amatul à la fin du mois un chèque loolu rek mënoo tax mu tas donc logique pour logique ñii nga xam ne dañu décider justement ne ñoom c'est des pro politiciens professionnels. Mmh. je parle pas des LD ou bien parti social yi nga xam ne c'est des partis yi nga xam ne historique moi je parle des politiciens professionnels yi nga xam ne. moom lañ def seen liggéey. voilà. donc ñooñu il est inquestion pour ñoom coalition bi tas maintenant nag pour résumer waxoon naa ko fii sur ton plateau je le répète je dis que moi je suis de ceux qui pensent que Benno Bokk Yaakaar en choisissant Amadou Ba a choisi le meilleur profil parce que ñoom ñëpp dans Benno Bokk Yaakaar y na a pas eu un seul qui a eu le courage de se lever pour dire que je suis candidat ah waaw il y en a un seul qui s'est levé pour dire que je suis candidat. wala ku indi candidat am technique kii mooy. sama candidat candidat donc il y eu. comme nag ñoom ñoo demoon ba d'accord ne président koo ñu tànnal ñu jël. mu tànn amadu Ba Amadou Ba tey jii est le profil idéal pour Benno Bokk Yaakaar.